waaw comme dañ ko waxante woon heure bii de muy euh, ma woo moo taxoon ma ni dinaa la woo daal ci mbir moomu ñu doon dégg foofu la ca Kolda ñu wax ni seen diine bopp ngeen yor ak seen alxuraan bopp ak seen yonent bopp ma bëgg a xam nag ndax yonent bi lay jokkool wala kan laay jokkool ci ñoom. ki nga war a jokkoo moom jox na la ko léegi. waa anamu. acca bismillah. waaw ngi nii. waaw bi maa kon ñu déglu la ci loolu ñu leen di tuumaal foofa ni dafa am ñun biñ ko déggee démb dañ koo dégg waaye ci cadre rumeur lañ ko teg jàpp ni loolu warut a mën a am euh, léegi nag nga indi leeral ci ndax loolu moo am foofa wala. Mm-hmm. Uh-huh. ci ko déggee. mooy da ngeen am seen yonent bopp seen alxuraanu bopp seen kaaba bopp seen diine bopp daal ngeen yor. jaamu yàlla waaw. comme doon na jaamu yàlla. waaw. comme doon na jaamu yàlla. waaw. man sa am diine bokk doo doo wàññi rajo boobu sa wedd ah. man nekkuma ak rajo de. d'accord waaw waaw. jaamu yàlla bu doonee jaamu yàlla. waaw. du man am diine bokk waaw. yàlla kay mooy am diine. d'accord. bu ko par defee nag. waaw. dafay séddale. day séddale. waaw. yéen lu mu leen sédd. déedéet day séddale. waaw moo tax ma bëgg a xam seen cër ci diine ji rek pour. rumeur bi gaa yi di waxante mu mën a leer. waaw yàlla. waaw. moo sédd ci yàlla Muusa téere bu tudd Tawraat. waaw. boobu liggéey liggéeyam mu dem. Uh-huh. mu jël ngeneel ba tey teereem. waaw. mu sedd ko yeneen ci yàlla daawuda. Uh-huh. mu nangul Muusa. waaw. kooku jóge fii. waaw. yàlla jël teeram jox yeneen ci yàlla uh-huh. mu nangul yeneen ci yàlla daawuda. waaw. kooku jóge fii dem. waaw. yàlla jël alquran gi ak ngeneel gi. waaw. séddee ko yeneen ci yàlla Muhammad alayhi wa sallam. waaw. kooku it nangul yeneen ci yàlla Isa. waaw. tey ko alxasan makkeruhu baaba diine mu ñëw. waaw. yàlla mu ko yónni. mu ne ko yónni. waaw. waaw. mu bi ko yàlla yónnee. waaw. jox teere. waaw. sant ko mu nangul yonent Muhammad comme ni yonent Muhammad nangoon yonent yàlla Isa mais téere bi mu ko jox yéen euh, doo wàññi rajo boobu ah, wala kii dend ak la rajo bi téere ma ne waaw kii dend ak yow la wàññi rajo pourtant li ngay wax yow mën a mën a leer ma ne waaw dama oh là là oh euh, non non non jaru ko léegi wuy ma ah, waaw xam nga ñi nga fi tudd ñëpp ñu nekk ay yonent ah. oh là là doo doo wax kooku mu sori rajo bi. mooy rajo nekku fi rajo nekku fi ligne la ligne bi la. ligne bi waaw d'accord léegi. Ah. léegi ñi nga fi tudd wax ni yàlla daf leen joxoon ay téere ba ki wax ni mooy yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. du yow gëm nga alquran. waaw. ah waaw. yow gëmoon nga ni yonent bi moo tëj yonent yi te yonent dootul ñëw gëmoon nga lool. xaatimul anbiyaa wa imaamul mursaliin gëmoon nga ko yor. yow sëriñ nga loo doon. non damay laajte rek man animateur la damay laajte rek du ma sax boroom xam-xam damay laajte rek. Ah. damay laajte rek wax dëgg yàlla damay ndax gëm nga alxuraan gi ñuy wax ni. Ah, ma ne xam nga mbir yàlla. waaw. yàkkamte. waaw. waru ci bokk. yàkkamti waaw. kan nga xool. waaw. waru ci bokk. waaw. ndax ñun ñëpp. Mm-hmm. ay nit lañu. mais gëm nga ne alquran moo wax ne fasalu alo zikri in kuntum la taalamuna allo allo uh-huh. waaw léegi man yàkkamtiwuma damay laaj rek man yii may def yëpp laaj la xam nga yàlla dañ laaj leen bu ngeen xamul bu ngeen xamul da ngeen laaj ñi xam léegi comme yéen yéen a xam waaw man gëm naa yeneen ci Muhammad sallallahu alayhi wa yàllaa ko yónni waaw gëm naa ne alquran ji waaw yàlla ko fi wàccee pour ñëpp. waaw. rahmatan lil alamin. waaw. yeneen ci Muhammad wax na ci alquran bi li ko yàlla sant kaatimun imaamul mur waaw gëm nga lool. gëm naa ko. waaw léegi kon ki ñëwaat kon yónnentub kan la kon léegi ko moom kan moo ko yónni. ki ñu ki ñu wax kooku. waaw moomu noonu Mbàkke kan moo ko yónni. waaw xam nga xam nga gëm naa wax nii. waaw. waaye est-ce que alquran waxul ne yeneen yàlla Isa dina dikkaat. ndax waxul dina dikkaat. waaw al alquran waxu ko. waaw mais ki ñëwaat Isa la wala. waaw ma waaw. di dëkkoon nga ne alquran wax na ne yeneen yàlla Isa dina wàccewaat. dana wàccewaat wala dafa wax ne eh, Isa eh, daajuñu ko dafa yéeg. waaw dina waaw dina wàcce. waaw dafa yéeg. waaw dafa yéeg waaye dina wàcce nag. waaw léegi Aïssa moom danga nga koo bëgg a tuddee seen waa ji Mbàkke nga man. non léegi tontul ci question bi bala ñoo dem da nga gëm da nga gëm ni kon Aïssa moo wàccaat nekk noonu seen waajooju ma waaw. doo ma nga wax loo ma lu ma narul wax. waaw d'accord kon maa ngi jégalu ati kon ñëwal. ruuhu Isa bi. waaw. moo wàccuwaat. ah moo wàccaat. waaw mu indaale téere. ne yàlla moom kon ban téere la indaale bi mu ñëwee léegi téere bi seen téere bi téere bi mu tudd bi dafa indiwaat bu bees wala dafa indiwaat euh, ban la indi. téere bi. waaw nu mu tudd. mu ngi tudd Jam Jam Padaar. Gam. Jam Jam Padaar. ça veut dire Gam Gam Padaar. loolu lu muy tekki. Jam Jam Padaar. waaw lu muy lan lan la lu muy tekki noonu. arab la lan la. lan la téere bi lan lu muy tekki loolu nga wax lan lay tekki. lu muy tekki. waaw. dem dem fagaar. Hmm. mooy firnde xam-xam yàlla. xam-xam yàlla. waaw. gam-gam padaar. waa léegi si euh, léegi sëriñ bi moom kañ lañ koy mën a am ci debaa moom nan mën nañ ko am ci débat. nga ne. ma ne ab yónent comme euh, ab yónent la nan la ñu mën a def ba mën a am man koo am ci débat laaj ak tontu comme dafa ñëwaat te ab yónent la. waaw. mën nañ koo am. waaw mën naa am. waaw euh, Sanjogu bu kon ma bàyyi la nga am loo ko laaj boobu bala ñoo kii xaaral ma bàyyi la ak saamu laaj. laaj bi waaw lépp li ma war a tontu. waaw. loolu amul dënd bi laajte. Hmm? amul dënd waaw. loo ma laaj. waaw. lu egg sama xam-xam. waaw. ma laaj léegi. Mm-hmm. waaw léegi yow kañ nga ñuy mën a jox euh, kii mooy yonent bi kañ nga ñu koy mën jox ñu mën a wax ak moom. ah. allo. waaye gam-gam nii ma de. man moom. Ah, moom moo coupé. non non ba Hmm. xam nga da nga ne Isa moo wàccaat. waaw waaye Isa suñu borom da ko joxoon téere Injiil na ah, nest léegi bi mu ñëwaatee lu tax téere bi changé nekk jam-jam padaar. lu tax téere bi changé mu nekk jam-jam padaar. waaw. xam nga yonent yàlla Ibrahima leer na ne yàllaa ko yónni woon. waaw. xam nga moo fi sos islam. waaw. lu tax yonent yàlla ñu jox ko téere alquran. non non non non non yaa ngi juum de sosul islam de Ibrahima <laughs> sosul islam de sosul islam de ah islam yonent yonent yàlla Muhammad lañ ko jox parce que li ñuy àttee nit jullit bi ci l'islam bokkul ak la ñuy àttee ñooñu yonent yàlla Ibrahima nag ku baax xanaa yow seen jam-jam padaar jàngalu leen lool hmm. waaw ma ne waaw la ñuy àttee yonent ñooñu yonent yële bokkul ak li ñuy àttee jullit yi waaw ma ne waaw jam-jam soo xoolee alquran waaw da nga gis foofu millata abaakum ibrahima wa huwa sammaakumul muslimuun waaw millata ibrahima wa ma samaakumul muslimuun waaw baay boo déggee ne ngeneen wàcce na waaw mooy seen baay ci ci diine ji bokkul ak ak ak moo moo wàcce lislaam nag sama sëriñ jëf xaa jam jam pataar jàngalu la ko waaw ma ne waaw boo déggee ne ngeneen wàcce na waaw yàlla def na nangam waaw àndal ak teey ye baay waaw léegi ñëwal ci li la Sanjoogu laaj ñi ki kii xam nga moom li mu wax xam nga li mu bëgg a yow li nga bëgg a expliquer yow da nga ne xam nga maam Ibrahima après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw n'est-ce pas mais yow kii da nga ne kii moom moo demoon te kii joxoon nañ ko téere ba pare moom mi demoon mu wàccaat loolu lu tax ñëwut ak téereem ba mu yoroon mu téere bi changé bi ci diggante bi gañ laay laaj waaw. waaw. non non ñëw ci eh, eh, laaj bu la saa laaj après ñëw ci loolu dinañ ñëw ci laaj boobu nga leeral ko mais ñëw ci la saa la saa laaj téere bi rek waaw leeral ma foofu rek ku ko tabax màkka nekkaal muy ma xam nga foofu yëpp dañuy sori waay waaw kilifa gi bugguma juyoo bokk ci wax ma rek kan moo tabax kaaba gi màkka <laughs> xam nga boobu non seeka dama ne xam nga yow da ne même kii bi la yonte yàlla yi saa moo yéegoon moo wàccaat waaw wala waxoo loolu léegi moom moom mi yéegoon wàccaat hmm. waaw léegi lu tax téere bi soppeeku ci diggante bi waaye dëgg du mos a soppeeku dëgg du mos a soppeeku waaw léegi lu tax mu tudd jam-jam padaar la la di laa lu tax fee fi mu tudd fi jam-jam padaar waaw heure bi jot na son bi de fii kay action yi bu faa nga jël ko mu <laughs> àggale li ñu laaj allo Thierno léegi dinañ la woo dégg nga léegi est-ce que ñun mën nañoo déplacé wu ak suñu ay caméra ñëw seet si yonent bi mën na nekk léegi loolu def na ci yéen d'accord kon bu ñu génnee ñu woo la insha allah ok ok haganga ho student ano mo dale no wala nimbi no wim فكان حسبنا نوم دار نوم الله نمي نوم فكان حسبنا نوم مولانا نوم الله نمي نوم نوم نوم نفيلا نجم بانو بانو بانو بانو بهم بجم نب هم بجم ناري جم وانو بالو فنغلو وانو مالو أوس نلم نيم هم دكتور نيم هم دكتور Enişte Arakalın arasla helem rüyüz doğanı dayanır bu helem rüyüz Hele rogas doğamır yüzüne doğar Allah izdos Beşlengar nedim Arakalın arasla helem rüyüz doğanı dayanır bu helem rüyüz Yüzünü Allah mınnim أدومنوها الله أدومنوها الله أرومي نوها أرومي نوها أرومي نوها أرومي نوها نجدم ببانغ نبول ببانغ هم بجملة هم بجمار ناري جمبون لوالو ibalehwe fungu kawalam we bar ne allah ona lik kama taranga be or ko ino na lasik ma ga nyam ni mem ni menu we faas de ni ni e e e ma imujna asatu en allah eref honok ajay fumala ajay bebe bo yasias allah ngok bebe nas de ni mu taw ilo no dimi be no dimi uhuru kam na sahla ko yase u ma mulen ani pinyal ni ma imujna boesiya eh, miye nimaɗo mab nimaɗo mruñ nimaɗo fañ nimne ñum hatnat tak nimuk enu nimo fatop nema imojna hallana eni dabab ilin igit allah وهلا انا وسالا عريتين روح من وهلا ما نردولوي ما نردولوي اجنبنا دارن እጆም ነደበደራግኒ ውሙሉጅ ነደበደራግኒ ውሃላ ኦዳለ ነኦኩሁሉ ከምና ሳህላ ኦኩ የስሚደሲም ውሃላ አነ ዊሳላ ኦደሽ ደበድሚደሲም ኦዶሚነ ውሃ